tuuma sa kaw tuuma yoo xamante ne lu toll ci 1 milliard 800 euh, millions du loon ndaw waaye la bu ko gendarmerie bàyyee ba euh, bañ convoqué ko ba pare mu dem wuyu ji ñëw ba ay polémique di si jóg. ngay soog a yónnee citation lan la ci doon xaar man question boobu laay posé. Mm-hmm. bu dee lu am la ni Ibou Dieng li muy wax dëgg la. Mm-hmm. na tamit munoo weddi Ibou. bañ a weddi ibu yow la tax mënoo weddi ibu. yow mënoo weddi ibu mënoo tamit gëm lat. Mm-hmm. Eh, li ma wax kon yow gëm nga ibu. waaw wuy ma li ma wax c'est clair. <laughs> weddi moom ibu gëmoo lat ibu nga gëm yow. mënoo gëm ibu waaye mënoo weddi lat. mënoo gëm lat xam nga tey fan la ñuy mën a gëmee. nañ dem ci yoon ñu mën a leeral bu dee loolu am na. ñu xam kan moom fa la dëgg féetee. na tey jii nii nag réew mi ñu nekk Ousin. waaw un milliard huit cent millions ma waxaat ko. dafa bari ci nit ñu koy dénkaane. lat lan la bu dee moo dénkaane lan moo tax mu doon dénkaane heure boobu. tamit lan la am lan la gis ci Ibou Dieng ba war koo mën a dénk un milliard huit cent millions. Hmm. bu ñu demee bay dénk Ibou Dieng un milliard huit cent millions te delloowaat na ko. Hmm. kon kañ ñu koy jiiñ ni moom. Hmm. dafa truandé wala dafa def dara kon moom. war nañ ko cee mën a setal. kon tey jii nii lépp loo xamante ni Ibou mi ngi jéem a ragg deram. lat génn tamit di ragg deram. fañ mën a ñoom ñaar ku nekk sa sa bopp rek. moo ci yoon ci yoon. ndax mënoo xam ndax Ibou set. wala lat moo set. mais dama ne yi ñu tudd ci réew mi bari na. milliards yi ñuy tudd ci réew mi bari na kii jël milliard kii a jël milliard. réew mi nag dañoo nekk réew moo xamante ni li fi li fi suuxee dafa bari loolu. Mm. te yaakaar naa ne milliards yi am na fu mu war a dugg waaye dama ne ci réewum Sénégal ngay gis politicien boo xamante ne demagul fenn nekk milliardaire. Mm. ci réewum Sénégal bi ngay gis politicien boo xamante ne demagul fenn yor ci oto yu baax yi dëkk ci kër yu baax yi. comme jomaay rek. yor ci lu bëree baree bari ci réew mii nga koy gis ci Sénégal muy maire muy député baa ngay ministre. Mm-hmm. mais tey jii ne war nañoo toll foo xamante ne nit ku nekk war nañoo xam sa patrimoine dafa la toll Ousseyn. waaw ah, bu jomaayee ci raw de yenn liggéey war amoo salaire bu toll ci mu war laa def milliardaire dëgg dëgg. Mhm. tey moom wax nga dëgg. Mhm. jomaay moom basam bi lu war a xool la waxuma la ba tey jomaay. bu ko jaxasee ak Sénégal yi dañuy daal tey <laughs> jomaay. jomaay moom war la moom c'est dëgg dëgg. dama ne balaa ñëwee tey soso rouge bi laa xam ne doo wax jàmm ba tey man waxuma la ah, jomaay. parce que li ma tur tuddaanuma tur. li nga wax moom dëgg la. waaw waaye dama ne réew mi patrimoine moom. waaw lu war a yër la. ndax ay ay ay terrain sacré cœur ak ay terrain ci Thiès ak. loolu yaa ko non c'est c'est ay terrain yooyu nëbb di jaay ak d' accord sa problème la de. <laughs> bu ñu duree jàmm bu ñu fi jógee ñu dem ci euh, voilà euh, Belia xam naa. Euh, demal man ma jàkkaarloo moom mooy. moom mooy Mimi Touré. moom. bu ñu ko tënkee ci olof. texte bi daal na ko publier ci Facebook am. daal di nuyu xarit yi am di jàmm yi je serai le 25 juillet au tribunal de Dakar salle 3 à 9h pour le dossier m'opposant à Mansour Faye. Mansour fay euh, ci li nga xamante ni moom mooy euh, gestion wu Covid 19 bi xaalis bu bëri euh, bi ñu of nag tegoon ci taabul bi nii dafa am lu ci leerul nañu ko leeral sénégalais yu bari di ci wax Mimi Touré jël ci kàddu Mansour Faye baalu ko ko li tax ma daal di koy wax parce que da koo jàppe da ko porte plainte jàppe ko ni jàppe ni daf koy diffamer voilà ñoom ñaan nag ñu war a dajee le 25 le 25 cinq je pense que moom mooy suba non suba ou suba naa nag dañoo ñoo a demati si naaj bi tàngoo ba taxawati rek salle salle 3 lay lay lay doon. 25 suba la. waaw suba la donc mm. xam naa suba à partir de 8h rek dina fekk seen teraanga def fa direct incha allah bi mais jéem a dugg ci bi waaye li ma si jaaxal mooy diffamation boobu c' est pas obligatoirement que ni euh, concerné bi dafay ñëw donc dafay ragal Mansour Faye est ce que dina ñëw en tout cas Mimi moom bu ñu ko déggee rendez la joxe euh, foofu sénégalais yi. day wut wàllu. nga ni day wut wàllu. nga xam ne wut ko Ousmane daan defee la koy defee. Mm. na leen informé rek xëy na jarul ko yow yaa waxal nit ki lii. wóolu nañ la loo yëgle mel ne ku yëgle tuuru famille jarul yëgle. na gàddoo yi preuve rek yóbbu. kenn ke lii bu amul benn sens tamit ñaata nit ay dem fii tribunal te kenn yëgu leen ñaata dossier lañ fay àtte kenn du ko yëg mais jarul ko jarul woote wallu ah Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang daa woote woon wallu moo tax nga gis ay bakkan yu bare wàcc ci ndax Ousmane xamoon na la mu wax lu dëgg. mimi mii tamit damaa njort na li mu wax du dëgg moo tax muy wootee wàllu. mais ñoom mu wax loolu sénégalais yëpp wax keroog si xam nga li de bu dee mimi lii na nar a yóbbu tribunal bay ba mu baalu Mansour àq te toog ndax du man dong bokkuma ko ceeku gën sénégalais yëpp wax lii rek ma wax lii eh way samba gën a yomb <laughs> demal ci mbedd mi li sénégalais yi wax yépp nga ñëw sa plateau bi wax ko di nga xam ne li leen jig-jigu la mimi na bàyyi caaxaanam yi lii mu wax moom du waxi dara mimi ñëpp dañ koo xamoon ci dignité ak fulla ak fayda jigéen la nag am na yoo xam ma ko wax ci moom waaye nag jigéen buy wax lu dëgg baaxul parce que day ah, nàmpal lu dëgg boobu nag egguñ ci de ndax yoon mooy leer wax de ah, wallu gi mu woote man Ouzin képp ku ñu yóbbu tribunal ngay woote wallu damay tiit mm-hmm. damay njort ne liñ lay ji ñaa ko def njort waaw damay njort parce que wallu gi nga woote rek daf may dute loolu léegi nañ yem si njort gi kon bañ a affirmer eh, xam nga man dama mas a dégg ci Bouba Ndour yow di nga njort waaw waaw demal waxal ma ne di nga njort laa man lool laa njort damaa njort ne liñ ko jiiñ moom lii mu wax nii amu ci preuve. yaakaar moom di laa njort. Mhm. ndax wàllu gi xam nga dama mas a dégg ci buuba nduur mu ne am na ku ko mas a tuumaal buuba nduur nee na fajar moo daan jiitu ca saal ba toog di xaar ndax li ko kooku tuumaal te woote wutoon wàllu kon xam na lam mu fay fekk man fekk naa audience yoo xam da nga indi nit ki ne ko ndax soxla nga avocat mu ne soxla moo jël avocat te bu tegee ka ka ka ko indi indaale avocat moo leen di gañe dëgg a neex mimi bu fekkee li ko lii mu tuumaal Mansour du dëgg na teel a woo Mansour ñu waxtaan ñu yamale fa mbir ma parce que gis naa fi ay dossier diffamation yu baree bare yoo xam ne nit ki bu demee ba xam ne dafa juum day woo kooka ne ko dama mm-hmm. Babacar Keweloo bi mu fi tuumaalee baarataal barki démb mais daa def vidéo ne baarataal damaa juum baara yépp ma sedd léegi lan moo tax mu def la mu bëgg a woote wàllu. mais c'est vrai que nag euh, procès euh, diffamation lu si bëri nag dafay am fréquemment euh, tribunal je me rappelle Gabriel kan dem naa ñaari yoon ay procès yoo xam Sénégalais yi sax amaana yëguñu ko xaw ma moom <laughs> moom dawul dawul dawul dawul. dawul diffamation procès diffamation dafay am dafay jeex. et puis présence su ki la ki la fa convoqué wala kilo la fa plainte parfois sax. maa am na ñoo xam ne boo leen en tout cas moom day dem te woote na. boo leen porté plainte dañuy yàkkamti. Mhm. dañuy yàkkamtee jóg départ. parce que dañ dañuy xam ne li nga leen yóbboo du dara du waxi dara mais am na ñoo xam ne boo leen porté plainte ñoo xam ne man mii def naa njaaxum mu ne waaye li sénégalais yëpp a ko wax sénégalais yëpp a wax ta nga wax ko ni lii dooy wax bu fekkee lii nga nar a yóbbu tribunal moom procureur di la laaj nga naan ko sénégalais yëpp a ko wax lii moom bay boo nga retiré ko ne ko ah man ka damaa juum kon sénégalais yee wax ma wax juum naa

nga ne maa wax. waaye boo mel ne Cheikh Bara Ndiaye tuumaal Thérèse dem nga wax nga ne vidéo bi dañ kaa monté xam ñëpp xam ne monté wuñ ko xam nga nag waa Pastef yii dañu war a bàyyi de. accusé nit gratuite yii lañu war a jël teg ci suuf. Cheikh Bara Ndiaye moo <laughs> ñoo monté. Cheikh Bara laaj ko man Cheikh Bara bu ñëw réew mu normal ma nga rëbës kat keroog Thérèse nee na ma lekk na fa xaw ma ñaata biskerem 18 biskerem xaw ma 19 biskerem ndax sonn na xiif dig neexul dig neexul. Thérèse nee na ma minute bu jot baara dajji biskereem xam nga moo tax sos baaxul nit da nga sa aqulaay temps la am na ci ñoo xam ne yow wéer na la ne Cheikh Baara Ndiaye li muy xëy di wax wal fajir suba ba ngoon bu ñu ko porté woon bu ko ñëpp porté woon plainte ñu am justice bu normal du génnati kaso wala alal jum am dina